asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balu ax di leen bal di ñaan suñu borom yàlla mu boole nu jéggal di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi suñu wayjur suñu maam sëriñ Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes di ko ñaanal yàlla yal yàlla yàggal ko fi yal yàlla dolli ko wér yàlla dolli ko sutura naal yi mu naal ci kër maamam sër Cheikh Seydil Hadji Malick yàlla yàlla mottali lépp moom ak mboolem ay mag ay rakkam ak ay njabootam mbokk yi mu mel ni su ngeen gisee jataay bi ñu teew fi nag ci ndigalu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ibn Cheikh Seydi Mouhamadou Soba mi nga xam ni mooy xalifa Cheikh Seydi Aboubacar tey ñu teew fi ci euh, ngir waajal programme bu mag muy ziar général ziar général nag ku ko wax wax jaayante bu njaboot war a jaayante ak kilifaam ndax li Seydi Hadji Malick waxoon ni dañuy beesal suñuy cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ñu nit war nañu beesal suñuy cofeel ci Cheikh Seydi Hadji Malick ak njabootam loolu moo waral taxawaay bii nga xam ni tey képp ku Cheikh Seydi malik Malick njaboote ci wàllu daayira moo xam fédération moo xam wàllu union moo xam lépp luy daayira rek tey teew nañu fii seen ay responsable euh, ngir woowaa réew mi woowaa Sénégal ci bés bi nga xam ne moom la ñuy waajal muy le 21 avril incha allahu taala ci Tiwaawan mu mel ni action daara ji alhaaji Pape Seck mi ngi nii teewal leen fi ñoom ñëpp di leen woo muy góor ak jigéen ñëpp teew ci jar général boobu sunu wéyjul alhaaji Maguette Ndiaye bu daayiratu Muxtafina moom it mi ngi teew di suñu kilifa aussi Serigne Assane sila teewal fi daayiratu Ahmadiya sunu mag alhaji Pap Pap Dieng moom fi ashabul kahfi Abdou Serigne Abdou Razak moom it fi fédération suñ papa Sid Ahmed Sy bu Ritière euh, mu mel ni dama mës a dégg suñu maam Serigne Babacar Sy Mansour nii kër Seydil Hadji Malick de seetu bu toj la ngal woo yëkkati di nga gis sa bopp waaye nag ab sak mi ngi ci ànd mu mel ni ànd boobu moo am tey ndax suñu maam mbay doonde dañu woon taalu ngànj mooy tibukaay mu ni déggagoo tibbal ma ci daay mu ni taalu boy ndafan mbay xal wu rëy tiwaawan te mag ñi nee am njaar balaa neex xal ya dañoo ndax su dañoo tas sahar si dina bari menga am am de waaye say bët dañu bas soo fa jógee yere yére daañu waaye su matt mi tegaloo matt su matt mi tegaloowee tàkk-tàkk bi rafet ah da nga am am njaar say bët du bas te soo fa jógee say yére du xeeñ mu mel ni mooy lii nga xam ni moom lañu ñu jublu tey xam ni dañoo jiital kenn muy suñu maam Serigne Babacar Sy Mansour njabootam gi mu am yëpp topp ci ginnaawam ngir lan sagu kër Cheikh Seydi Hadji Malick kon ñi ngi ñaan bés ba incha allah le 21 avril muy góor ak jigéen mag ak ndaw ni ko kilifa yi waxee bu kenn manqué te suñuy indi ñëw nañu indi yar suñuy ñëw nañu indi teggin ndax kak ay nit yàlla la ñuy ziar si te nag sunu faju aajo adduna ak alaxira dafee aju kon ñu ngi góor ak jigéen mag ak ndaw ak kilifa yi ci réew mi yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.